xaatimu nabi imaamul mursaliin Cheikh Abdallah Cissé Cheikh Abdallah Cissé di ku nga xamante ni nii xam-xamam dafa màcc lool jëm ci wàllu médecine traditionnelle di ku yàlla may yéen ñi nga xamante ni yéen a soxla lii di bayre bëgg a ubbeeku lool wala sax nga am loo xamante ni da nga caa nekk te bëgg àdduna bépp di la dégg Cheikh Abdoulaye Cissé moo ca man lépp lu nga xamante ni lu yokk doomu aadama la ci wàllu bayre wàllu musulaay lépp lu nga xamante ni lu lay aar la Cheikh Abdoulaye Cissé moo ca man bu fekkee ni nga am jafe-jafe ci sa wàllu sëy Cheikh Abdoulaye Cissé moo ca man da nga néew kàttan lool sax Cheikh Abdoulaye Cissé moo ca aay bu fekkente ni nag da ngay am di faral di am bopp buy metti lu baree baree bari Cheikh Abdoulaye Cissé moom moo ca man bu fekkente nag da ngay gis baax muy metti lool mbaa ngay gis baax muy tëw a arrêté dawal gaaw seeti ki nga xamante ni nii moo di Cheikh Abdoulaye Cissé yàlla may na ko ci lool sax bu fekkente nag da nga amee li nga xamante ni moo di hémorroïde loolu nag moom yëfam la moo ci man hémorroïde bu la sonalee dawal gaaw seeti ki nga xamante ni nii moo di Cheikh Abdoulaye Cissé Cissé wala nga amee li nga xam ne moo di ndoxam siti Cheikh Abdoulaye Cissé moo ca man képp ku nga xamante ni rek am nga loo xam ne lu lay metti la mu sonal la trop moo xam muy néew kàttan wala bawk nga amee ay jafe-jafe ci sa wàllu sëy wala sax ngay faral di am bopp buy metti lu baree baree bari wala sax booy gis mbaax muy metti mbaa mu tëw a arrêté wala nga amee li nga xamante ni nii moo di hémorroïde wala nga amee la nga xam ne moo di ndoxam siti wala nga bëgg mbayree ci sa wàllum jaay wala nga bëgg ubbeeku lool ci li nga xamante Cheikh Abdoulaye Cissé mo ca gaaw ma nga ca Maroc Casablanca fekk leen ko ca Marrakech lépp lu nga xamanteni ni nii waaye daf koo soxla ci walu bayre wala ci walu ubbeeku wala ci li nga xamni dang cey yëngu bëgg àdduna bépp di la ca dégg Cheikh Abdoulaye Cissé mo ca gaaw wo leen ko ci numéro bi di 06 90 90 13 98 mbaa ngeen woo ko ci numéro bi di 06 04 30 54 18 Cheikh Abdoulaye Cissé ma nga ca Maroc nee na képp koo xam ni da nga amé ay jafé jafe doxantu leen gaaw ca Maroc ngeen fekk ko fa Casablanca ca Marrakech yow mi nga xamante nii da bëgg a tukki di am ay jafe-jafe ci say wàllu kayit wala boog ñu dig la dara mënoo caa jot Cheikh Abdoulaye Cissé moo ca gaaw ànd leen ak moom lépp lu nga xamante ni luy sonal doomu aadama la jokkoo leen ak Cheikh Abdoulaye Cissé Cheikh Abdoulaye Cissé daal mi ngi ci réew mi ngir toppatoo doomu aadama yi ci seen wàllu wér yaram